kenn mësu koo gis su lu ñaaw tubaarkàlla macha allah jot na ñu delloo ko njukkal tey nag mu ko fiy moom mi nga xamante euh, euh, euh, ne la tàllal micro laaj la lan mooy sa relation ak ki nga xamante ne moom moo di Omaro liba ce ci bésam bu màgg boobu noonu ah ku ci mel ni Temps mi ngi fi ah ci mel yeneen gars yi ñëpp ak si mais xarim Thiam lan la looy reen <laughs> yi. ji dañoo neex quoi booy artiste ndaw yi dañoo neex. <laughs> mais yéen daal fu ñu leen fekk gars da ngeen foo da ngeen lan la qu'est-ce qui se passe. <laughs> c'est que xool. yaa ñii rek ma leen a bëgg. Babacar Bongo ah. non ñii ñii samay frère lañ ñu nekk ñu baax vraiment waaye nag. waaye léegi nag Babacar moom sama doom la loolu leer na àdduna dama ko bëgg ba mu neex kii sama doom la mi ngi nii ko laal di ma laal parce que sama doom la barke Serigne Touba Papi Sou sama xarit la moom nekk ku baax barke Serigne Fall. da nga ne woon yow doo bongo man loolu nga waxoon non non mais da nga ne woon doo bongo man loolu suñu jotaay ñoo bokk plateau yi dem ñun plateau yu riis ci dëkk bi ñun dañ ciy bokk force. ñooy xorom ci cun ñun boo bëggee lu neex da nga ñu ci boole faaw nga woo Papichou woo Babacar xaadim loo wut si danga nga ne woon xam nga confrontation dafa am xaadim taane man ñii du ma seen morom ay bongomaan lañ mais plateau bu rëy ci Sénégal maan dañ fay taxaw kon lu fuut si. mais mais mais loolu ma yéem nag Babse non non dafa doon non dafa doon ambiance rek dafa doon kaf rek mooy loolu tamit na ngeen waxante dëgg non dafa doon kaf rek daa doon kaf loo àndee kii diggante bi xam nga nag gi nga Babacar da xaw foo nag c'est que yow nag da xaw foo man sa foo gi jaaxal na ma de yow man yow man sama coalition nga bokk wala Babacar Baye Fall la ah. xam nga bu nekkee Baye Fall eh. mais Babacar bu dee ba <laughs> mais xaar mi temps sa waay bu dee Baye Fall kon pep lu tax maa kii ñu far kii Baye Fall la baax ba pare nekk góor yàlla bëgg ma ma bëgg ko nag mu nekk taalibe du euh, Abdou Karim yaa ngi dégg nag moom yàlla na ko yàlla. foo nga de. yow loo wax. Babacar yow kañ nga ànd ak Xaadim Taan ci waxtaan bi Ousseyn. bok ci waxtaan <laughs> non ma Khadim Temps moom sunu xarit la ñun lii lañu xam buñ ñooy daje ci boîte yi dañuy kaf fooree ah ambiance loolu lañu xam daal ñëpp ay Baay Faal lañu ay Baay Faal lañu ah bu fekkee wàllum aar bi dañuy taasu nit ñi ñu ngi naan na nooy na dëgg te taas moom day nooy waxuñu góor ñu ñun góor ñi ñooy nooy de taasu bi lañu wax ci jëm boppam mooy nooy. moo bu ñu nekkee bu ñu yeggee ci néeg ba na dëgër. bu ñu yeggee kër ga na dëgër bu nekkee ci mbedd bi na wow koŋ non bu ñu yeggee ca lal ba ak suñu jabar non day nooy day dëgër non day dëgër day dëgër Mor Thiam xale bu ci dugg ci sunu garde bi dootoo ko defati doo ma laaj lu tax xoolal Assane Assane Assane muye taaw sunu taaw bi mooy sunu jëkkër doo laaj lu tax njëkk a juddu njëkk a baax njëkk a màgg njëkk a tekki dara xoola doom bu fi juddoo ne la bàjjen koo fase mu dem billaay da ngay xale te bari jom du sa yaa ngi nduru ab boo juddu ab boo taar ab boo daraay maye aawa yaay ñaareel tànta xam nga daa nooy bongumaan yi taxaw yëpp bongumaan yi nga xam dañ ne day dëgër <laughs> ñu ngi taasu bi. mais en même temps toujours euh, concentration la dégg nga ne euh, yi nee neen day nooy bu nooyul doo tëgg yow yaa ko wax xaw ma kii am na ku ne si ne bu nooyul. waaw yow nga ne pourtant mi ngi dëgër te <laughs> moom li muy wax sax man moom ba tey li ma waxoon maa ci. <laughs> ma ko wax mais kii moom li mu wax da ko wax pour neexal émission rek waaye moom euh, man sama mbir ku ne xam na ni moom man góor yàlla laa te loolu laay dox mais ñii dañuy mbalak rek dañuy fo rek mais loolu new ci ñoom. mais xaarim gis la Babacar. ma gis ah, nekk fu aar dafa toll fi nga xamante ni bii. comme ni ñu koy faral di waxee yéen a ngi defaraat aar ci lan boolo doon benn xaarim temps nekk seen mak aussi won leen exemple bu moom nit ku dëggu la man Babacar man dara safuma ci réew mi te dara ñoruma nit mënumaa jaay lu ma saf ci réew mi ndax lépp lu di def rek wàllum banditisme wala wàllum def lu bon def naa lu ne ba toog ànd naa ay nit ñuy def affaire banditisme ba toog dara jaaxaluma ci réew mi dara dara dara dara moo tax man mbooy laay baali ji ak caat ak waali sekk dara safuma ci réew mi te nit mënumaa jaay ma saf ci réew mi mat ndax xam nga dama taxaw ne man artiste moo tooñ lundi di fajar ma fëgg la kii nag nit ku dëggu la dafa direct xol bu rafet la yor man Babacar borom xol bu rafet ak kuy def lu baax ak ku dëgg moom laa mën a àndal boo dëgguwul yoroo xol bu rafet du ma mën a ànd ak yow. Papichou. Mhm. waaw li mu wax nii day dëgg rek parce que xam nga des fois ñun dañuy taxé ay moo yoo xamante ne nii dafa jaar ni ñu jaar ne te à nag sunu aar bu jotee lépp lu mu laaj dañ koy joxe ba mu jeex. parce que ci lañuy ñuy tedd ci la ñuy teral suñu ay waajur ci la ñuy teral képp ku ci yàlla boole mais nag euh, comme ni ñuy wax rek ku jiitu moom dégg sa ndong lu duuf li xëy na ñun dañoo ñëw oser imposer gëm suñu bopp xam ñooy kan ndax bongo am na fu mu nekkoon ay temps mais ñun bi ñu ñëwee dañoo innover tu vois dañu innover waaw ñu ñëw def forox tilim tu euh, di di tux mais ñun dañuy ñëw imposer sol lu rafet xeeñ lu neex gaari suñuy oto imposer te loolu ñu am liggéey moo ñu ko may bongo bi moo ñu ko may donc nag euh, bu sa xol naqaree nag doo mën a imposer doo mën a bëgg ñu bari ñun nag duñu ne duñu danoo neex a bëgg mekk mais duñu neex a bëgg borom xol yu bon ñu iñaan ñu soxor ñi nga xam danoo jeexal màgget seen dara doxatul dañuy soxor mais ñun dañuy tëgg lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche amuñu temps te barki sëriñ Babacar li Babacar wax ne ku ko tooñ lundi bu màddee mu yee la mais ñun lu nit faj midi bu une ñu faj lu ko raw kon I don't care képp kuy bandi ci réew mi rek Babacar ba mu nekkee xale bu ndaw àndu na ak yow dag may ma toog fi ma toog yëg sama téléphone bi xale fi xew man danaa ko wax loolu lu xoolal nay nooy <laughs> nay gën a nooy taasu warul dëgg <laughs> day dëgër day taasu warul di nooy <laughs> sa ak Omaro ba tax tey nga ñëw ci li nga xam te mi ngi koy feete mi dix ans de carrière yi waaye Omaro nekk ku baax nekk jëntal grand baax yéen a ñëpp jàmm xolam set nag lool macha allah muy taalibe Serigne Saliou di taalibe Cheikh Béthio te mën naa ne képp kuy taalibe Serigne Béthio rek taalibe Serigne Saliou nga ñu bokk ki ñu bëgg man ak moom muy Serigne Saliou kon nag bu ñu woowee wax ñu bisam muy anniversaire am duñ def lu dul bàyyi suñuy yitte bàyyi suñuy nelaw ñëw wuy si ko parce que taalibe la nekk ko baax ko ku oyof ah. loolu moo waral ñu ñëw ñun ñëpp fii képp koo fi gis rek omoro am na lu mu dund ak yow lu moo waral ñun ñëpp ñu bàyyi lu ñu jàpp daw ñëwal ko muy xol bu rafet bi muy nekk taalibe bi muy mën a boole doomu aadama Omaro musuma dégg mu wax ci nit lu ñaaw lu baax rek la xam te ci lay dox moo tax nag ñun ñu bàyyi suñu nelaw ñun tamit ñëw pour soutenir ko parce que suñu frère la Papichou mhm. waaw dañuy confirmer rek parce que Omar moom euh, ñun ñun ñëpp am na lu mu séq ñun ci teraanga am na lu mu séq ak ñun ci mbaax wax dëgg yàlla man bi muy bi may doog a door sama carrière euh, dafa ma daan woo ba këram bu jógee France yëkkati xaalis bu bari ak ay yére ki daal ne ma joxal sa soxna joxal sa yaay wax dëgg yàlla dama dama xiital ci bëggal sa waajur loo am bokkal sa waajur donc Omaro nag mu marqué empreinte am ci réew mi fexe ba bokk ci réew mi donc loolu moo ñu yëkkati ñun ñëpp di ko ñaana rek yàlla na dund cent onze ans sans ordonnance di ko wax joyeux anniversaire di ko wax ne tey dañoo ñëw fay si bor waaw parce que daf ñoo jàppale ñun ñëpp. macha allah am na solo waaye tamit nag ba tey Babacar moom itam mi nga xam ne def na déplacement ñëw ci bés bi Babacar relation ak Omaro. Omaro nag moom dafa nekk grand bu baax. doon nit ku ñàkki ñaan yor xool bu rafet doon taalibi Serigne Touba doon taalibi Serigne Saliou lépp lu mu xewal rek ci réew mi rek daf may woo téléphone képp kuy nit ku baax ci réew mi rek am xew daf may woo téléphone boole ma moom mu doon nit ku baax nag nit ku ñàkki ñaan yaayam bëgg ma ay famem barki démboo Njaay ba ñuy takk raxam dafa maa woo raxam ñu koy takk mu woo ma raxam am doom ñu woo ma raxam sëy ji ñu woo ma fépp lu mu xewle ci réew mi rek dafa may woo barki Demba Ndiaye ba muy ubbi émission bu bees ba mu ko njëkk def daf ma woo boole maag directeur KP bi mu teral ma may ma xaalis su bari maa ngi koy ñaanal nag yàlla defal ko jàmm lépp lu mu bëgg rek yàlla na ko yàlla defal ci barki alxuraanu karim di naan nag seen site bii yàlla na doon site bu gën a mag ci digg réew mi ndax site bi kaa rek lay wax ci réew mi. kañ ngay jaar. kan man man du ma ma xujja de bis ma jaaree dëkk bi yëngu. la.